ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di tàmbalee si ziar yi ak a ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa muy toog jotaay Serigne Touba Xaadim Rasul di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tumaan ak wér noonu la ñuy ziare ak a ñaanal eh, Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda Fall mi toog jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall sunu yàggal ko loolu tumaan ak wér waaye te di beral ñaan Serigne Cheikh eh, Jëmb Fall eh, mi doonoon bi nga xamante ni ba mu fi bàyyeekook léegi. suñu borom dogal na ni kat tey yàggu dara doon nag euh, ku ñuy bàyyi xel ba léegi ndeysaan di ñaan suñu borom dolli ngërëmam euh, te taas ñi ci barkeem waaye te di beral nuyoo ak ziar Serigne Cheikh Ngounda Fall di suñu yaakaar tey ëllëg di ñaan suñu borom maamam kàttanal ko li mu am yéene liggéeyal ko maamam ju tedd ji maam Cheikh Ibrahima mu defee ko na koy njortam te ànd ak mbokki taalibe yi waaye mbokk di beral ziar ak ñaan Serigne Cheikh Bintu Fall. moom Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi loolu te mandek wér defal ko mbooleem njaboot Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar waaye di ziar bu baax a baax Serigne moom wax taala Fall moom Serigne Abdoulaye Fall Ndar mi toog jotaay Serigne Abdoulaye Fall Ndar di ñaan it sunu borom yàggal ko fi loolu te mandek wér xam ngeen ni mbokk yi loolu bu ñu ko waxee nag xam ngeen ne xel yëpp day dem si euh, bisub lambinaas di nag euh, bis bi nga xamante ni cëruk Serigne Cheikh Bintou Fall la maamam ju tedd ja dencaloon ko cër gu rëy googee nga xamante ni juróom ñaari at a ngi nii mu koy def incha allah ren di juróom ñetteeli at wala juróom ñetteeli édition muy def bis bu mag boobu ndax nag euh, bi ñu waxee Lambinaas xel yëpp dem si maam Cheikh Ibrahima Fall waaye xel yëpp dem si Serigne Touba Khadim Rasoul kon ñu ngi si juróom neelu édition bis boobee incha allah euh, ñi nga xamante ni ñoom la sëñ bi wóolu taxawu leen ñuy taxawu bés bi. si kanam incha allah dinañ si ñëw di sëriñ maam Cheikh Jaxate mu baax mii di ko ziar bu baax a baax si taalibeem si engagement am si bëggam eh, sëriñ Tuubaa maam Cheikh Ibrahima Fall waaye rawatina eh, léppam di kër sëriñ Abdoulaye Fall Ndar jaaree ko sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar suñu borom dolli yi ngërëmam bu wér a wér eh, jaare ko si che fi mu ne nii nag mu nekk si keppaaru taawam bu baax bi di sëriñ Cheikh Bintu Fall yàlla na ko suñu borom gën a kàttanal ba li nga xamante ni mooy yéeneem euh, ci liggéeyal waaye juróom ba liggéeyal maamam <clears throat> suñu borom defal ko ko nu kaay njortam tey nag xam ngeen ni waxtaan wi Serigne Mamou Ndaw Baye Fall moo koy taxawu fas yéene euh, waxtaanee lu jëm ci taarixu Lambinaas waaye waxtaanee euh, sunu maam Cheikh Ibrahima Fall xam nga moom daram génnul Cheikh Ibra moom moom wax dëgg yàlla incha allahu rabbi waaye te dikkal lenn si euh, taarixu Serigne Moodu Abdoulaye Fall Mber jàmbaari maam Cheikh Ibrahima Fall googee di ñaan suñu borom gën a dolli ngërëmam sëñ maam wax ndaw Baye Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah. tabarakallah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Alioune Badara. aouzu billahi mina seytaani euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax gannaaw bu ñu nuyoo ziar euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha. bi nga xam ne fi Serigne Touba Cheikhul Khadim di ñaan sunu borom mu dolli ko yàgg ak wér ba lépp lu mu naalal Serigne Touba mu yeggale ko ba sumb yeneen naal naka noonu lañ koy ñaanale it ki nga xam ne fi maam Cheikh Ibrahima Fall muy seen di Fall moom sëñ Modou Fall Mbenda ñaan sama borom dëbb ko kattan ak wér bu baax a baax ba yéeneem ci maam Cheikh Ibrahima Fall mu yeggale ko ba sumb yeneen naal ndax yitteem jëpp mooy li nga xamante ne bii ku tedd kaa nga koy sant muy Cheikh Mouhamadou Mountakha lépp mu yeggale ko ba sumb leneen loolu mooy yitteem ndax wax na ko ci làmm ñu mu dégg kon ñoo ngi ko koy ñaanal bu baax a baax sàmm borom dëbb ko kattan ak wér. Euh, di siyaar bu baax mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp tey nag ñu war a waxtaane jàmbaar ki nga xam ne moo toog ci buntu kër Sëñ Abdoulaye Fall Ndar Sëriñ Taala noo ngi ñaan sunu borom dolli ko kattan ak wér tey ñaan borom wéral ko bu baax a baax a baax a baax waye di ziar bu baax nak Serigne Cheikh Bintou ci taxawayam ak pas-pasam ci liggéeyal maam maam Cheikh Ibrahima Fall bi mouride ñoo ñogi ñaan suñu borom euh, Serigne Cheikh Bintou suñu borom doole ko fa yàggal bu baax mo ki rakam mbolam ñu mbokk serigne mudab lay ci taxaway bi ak ci uuf gi uuf njabot gi te lepp rafet ñogi ñaan suñu borom dëbb len bu baax euh di ziar nak mbolam timit njabot gi nga xamne ne andon ak Cheikh mudab lay di liggéey. <coughs> maa ngi wax nag defar gi su ma ci tuddee sunu bàyyi Serigne Talla Niang day daal di yóbbaale mboolem mboolem seex yi nga xam dañoo àndoon nag Cheikh Moudou Abdoulaye Fall Ndar ñoo leen di ziar bu baax a baax te di leen ñaanal bu baax di ziar euh, sunu murid yi nga xam ne ñoo teew sëñ maam Cheikh moom ci daal ji la bokk euh, sëñ Maguette moom tam doon maam Ousmane waaw moom sa dugg Cheikh Atoumane Diouba Euh, loolu day wane ne kër Cheikh Ibra lépp ndax euh, Cheikh Atoumane ak Cheikh Ibra moom ñoo bokk lépp yàgg nañ lool loolu sax defe naa yàgg na amul du jar sax xam naa di tudd waaye nañ lool ci la ma mën a xam te mag ñi wax nañ ma ko daal mooy ñoo bokk lépp ndax defe naa ne fukk yi njëkk topp Cheikh Ibra Fall Cheikh Atoumane ci la bokk kon loolu yàgg na kon na kër Cheikh Atoumane mooy kër Cheikh Ibra ñoo ngi ziar Baye Assane Diop mi ko fi nekkal sama borom dolli ko kàttan ak wér bu baax di siyaar ñoom Baye Saliou Diop Baye Saliou Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax sëñ Aliou Badara ah xam naa man day maa ngi doon xaar sax ndeysaan suñu gan yi nga xam xam nga sëñ suñ ne daf dañ leen jëmmi wala waxtaane sëñ Ablaye wala waxtaane len lu bokk ci taxawaay ko sëñ Ablaye moom dafa am ay jàmbaar yoo xam ne suñ toogee fii suñ ne Cheikh Ibrahima wala sëñ Ablaye man damay tok fi ma toog damay nos day melne bay Baye Moustapha Seck mu ñëw ci jotay bi rek wala waaw waaw wala wala waaw mag ñi dal ndax ku ndax jàmbaar yi rek jàmbaar yi Cheikh Mourad Abdoulaye yi nga xamne waxtane cheikh Sëñ Abdoulaye Fall Ndar waxtaane Cheikh Ibra waxtane si dañ ci tok Sëñ Mourad Abdoulaye lañ ci tok tambale ko ci bay malik sar man dama tuddu sax tambale ci bay Talla Niang bay Talla Niang ñew ci bay malik sar ñew ci seigne salim ndjay ba ci mam Cheikh ibrahim Dieng ku fi mas toog fii rek wax nga ñu ci sëñ sëñ sëñ Ablaye Fall Ndar rek Cheikh Ibrahima sëñ Modou Ablaye loo xam ne ñun ñëpp dañuy daal di nag commencé maanaam noosaat dëgg dëgg dëgg ci jàmbaar yooyu waaye tey nag buñ ne ma maa leen <laughs> ah, loolu de kéemaan la waaye nag waaye nag xanaa jiim rek ndax ndax xam nga jàmbaar jii di sëñ Cheikh Bintu sëñ ba dara day ku bëgg lu baax defe naa jës bu murit moom xam na ka mooy sëñ Cheikh Bintu moo si jëkk taxaw waaw ndax sooy may fàttaliku ca 2014 ca ndar ca ndar waaw loolu laa waaw <laughs> ci buntu armée bi caaga jaay boobu gudd na lool wallaay waaye nag eh, xam-xam feeñ na fa ma nga te xalaata mosta génn ci jotaay bi mm. saa su nekk ci lu koy jëmale kanam ak luy tax mu dox mm. saa su nekk saa bu la wooyee bu doon ñaari kàddu sax dana la ko fàttali ci ne xam naa mu ngeen defee nang def nang def nangam dana baax mm-hmm. barki démb rek li ma mujj a ci nuyoo bi mooy daf ma ne daara yi Cheikh Ibra sancoon su ngeen ko wëree ba mat ngeen wër daara yi nga xam ne doomi Cheikh Ibra yee ko sanc ba mat ngeen wër daara yi nga xam ne sëti Cheikh ko sanc waaw waaw ndax Cheikh na daara mm-hmm. benn sëñ Modou Moussa Sall Fall sanc daara mm-hmm. sëñ Cheikh Fall sanc mm-hmm. na daara hmm? ah, Cheikh Ibra sanc na daara sëñ Ablaye Fall Ndar sanc daara sëñ Mourou Ablaye sanc daara sëñ Cheikh Bintou na daara ah, ah? <laughs> waaw loolu la xam nga kon loolu loolu lépp day wane ne kii liggéey rek la am ndax lam sa lam lam sasoon lam sasoo woon maa nga ca ba ba mu fi jógee ay doomam ca loola lañ nekk ba ba mu fi jógee ay sëtam ca lañ ne ba ay sëtaatam tey ci lañ nekk loolu loolu xalaatu sëñ Cheikh Bintou pour wax la rek naa la kon jës bu mu rek moom da cee bokk moo tax saa su ne lu koy doxal ak luy tax mu dox rek ci la ci la ci la dox loolu rek laa doon nuyoo ci moom ndeysaan sëñ Mamour <laughs> toirkàlla euh, nu ngi dellu siwaat léegi euh, sëñ maam Cheikh Jaxate yow de mbégte la loolu wax dëgg yàlla moom nag yàgg naa ànd ak ñun jotaay bi ah, xam naa ne tey moom day ñëw gunge sëñ Mamour rek ngir nag ñu waajal bis bu màgg boobu di nag fukki fan ak benn si weeru di samedi bii ñu dëgmal incha allah le 11 juin ca Masaalikul Jinaan fas yéene dundaat maanaam mbégteeg euh, lambinaas ñu ngi lay ziar bu baax jërëjëf sëñ Alioune maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax di santaat sëriñ bi bu baax di ziar di ziar sëñ comme ni nga ko waxee rek yéen moom <laughs> ñëw bokk lépp yéen sunuy ngeen di sunuy jëwriñ di ziar sëñ Maguette di suñuy seetu ci yoon wi ndax wóor na Cheikh Ibra lépp lu ñuy def ci yoon bi di ko dox seeni tànk lañ ci topp waaw démb rek laa lay wax naan la liggéey bi bu meloon ne altine ba dibeer daanaka yéen dafa mel ne ngeen tàmbale altine di dox ba dimanche muy dibeer ñun ci lañ door a tàmbali dañuy door a door dooraguñu sax yàlla leen Cheikh Ibra Fall bi ngeen yaakaar gën a kattanal waaye yàgg naa wax suñu maamu ne ko Cheikh ngi leen waaw maa ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa maa ngi nuyu bu baax euh, mbokk jullit yëpp sax laay wax tàmbalee di nuyu mbokk taalibe yi di nuyu. mbokk taalibe yi ngay waxal de bu ñu sañoon dañuy jàkkaarloog yàlla àndax yàlla àndax yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi siyaare mbokk jullit yeeg mbokk taalibe yëpp. Hmm. di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou taxa Mbacké di xalif général des di ñaan sama borom mu yàggal ko te wéral ko di ci teg sëñ Amdi Fall Modou Mbenda xalifa sëñ Modou Mbenda di xalifa yoonu Baye Fall di xalifa yoon wi ndax yoonu Cheikh Ibrahima mooy yoon wi di ñaan sama borom gën koo yàggal lool te gën koo wéral moom ak i rakkam yëpp ak mboolem ku sant Fall ak ku sant Mbacké maa ngi nuyu di siyaar sëñ Momar Talla Fall di khalifa seigne Ablaye Fall Ndar ak njabot seigne Ablaye Fall Ndar gi yep ma ngi di nuyu di ñaan sama borom yagal leen te wëral leen non lañuy jallé di ba suñu khalifa di sering Cheikh Bintu Fall hmm. di ñaan sama borom dolé guddal fanam doolu ko wëral doolu ko defal katan ba naal yi mu naalal sëriñ touba ak Cheikh Ibrahima ak bayam seigne Modou Ablaye Fall Ndar hmm. nga xamni ku mu gis bëgg na la liggéeyal bëgg na sa yalla nako sama borom defal di ko di ci toftal jëwrinam di sering Abdou Fall eh, soxna mam sey Fall jité soxna yi ci kër ga ak sëñ jili ki nekk rakk yeeg ñëpp rek di siyaare mboolem kër gi di siyaar mag ñëpp su ma jëlee sëñ Talla Niang ak Baye Malick dina yóbbaale ñëpp maa ngi siyaare mbooleem koo xam ne yaa ngi ñuy teewlu ci émission bii di Jazboul Mouride ñu koy amal fii ci Lamp Fall waree waxtaanee sixième édition Magalu Lambinaas. Mm-hmm. jërëjëf si yàlla. jërëjëf sëñ maam Cheikh Diakhaté jërëjëf li moom bëgg na bëgg nañ ci lool lool wax dëgg yàlla <laughs> sëñ yow moom li ñu naan moom yaa ñuy ubbil jotaay bi yow nu la fu la neex nu la neex ngay duggee waaye daal les lu ci mën di xam li ma gën a yéem si moom mooy dafa waajaloon ànd ak euh, mbokk yu baax yi nga xamante ni ñoo ko waroon a aw ngir xam naa ni moom tey moom jotaay bi moom jotaay bu spécial la waroon doon waaye loolu nag moom dem dellu si lay doon rek bu ko defee mun kaa ànd ak mbokk yi mm. tey moom incha allah bu ko defee bu ñu tàmbalee waxtaan wi fu la neex rek daal di tàmbalee waaye nag yaay ubbil sëñ Mamour gannaaw boo nuyoo <laughs> noo ko bëggee rek noo ko yëgee fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah abu jaarul la ilaha njaay la ilaha illallah fala ilaha illallah illallah ya baax faal Cheikh Atman Diop la ilaha illallah fala ilaha illallah Cheikh la ilaha walla ilaa ilaa suur maam si njaay la ilaa ilaa fala ilaa ilaa ilaa ya bafal Cheikh Mourad Laay fu la góor dee la ilaa ilaa لا إله إلا الله لا إله إلا الله برك مام زيارة فال لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله لا إله إلا الله برك مام زيارة فال فلا إله إلا الله ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fal barke mam Cheikh Rabal barke sin Cheikh Bintou Fall ñoo tu bu baax est-ce que di ñaanal baax Serigne Mountakha Mbacké sa borom guddal fan ak wéral cëram amiin barke di ñaanal baax xalifatu mam Cheikh Ibrahima Fall amin mo lu Menda sun borom dal fana wëral ci ram non lañ koy ñaanalee xalifa ya, cheikh atuman Diop borom ciongo muy cheikh Hassan Diop diko ñaan sun borom guddal fana wéral cëram ak njabotu cheikh atuman Diop gep rek waa ciongo Diop gep ginaaw nak benu ñaanale khalifa cheikh Béthio Thioune Serigne Saliou Thioune gal tapé mhm. diko ñaanal sun borom guddal fana ci cëram sa borom daf ma galé nong leen di saare bu baax di saare ñepp rek ñi fi tew tay saare bu baax jullit ñëpp ak murit yëpp ak bayfal yépp tijaan ak xaadar ak nag ñasee nag ñëpp rek barke Cheikh Ibra mm-hmm. ndax ñëpp njabootu njabootuk Sëñ Tuubaa di ñaanal bu baax ñi ma àndal sëñ Abib Mbay sëñ Baay Mbàkke sëñ Tafa Bey maanaam ni mu demee la waaye konoon waaw maa la wax lii sëñ Mor Blaay daal amul morom ñoo ngi ñaan bu baax sama sëriñ sëñ Cheikh Bintu Fall ñu am teen si moo waral bis bi mm-hmm. diko ñaanal faal yaram yalla nga dundu yalla nga wër ci kattanu Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar di ñaanal bax ñëbatu Cheikh Modou Abdoulaye gep ak wa Ndar Fall gep wa Touba ñepp rek ñong leen di ñaanal di wax maaleykum salaam ñoo ngi tubu bax tay jéggaluna jërëjëf Magay euh, duggu ci bi mom Mamour am solo fim mu ni dal moy liñ wax rek li nak waccay la si bis bu mag bobu di nak euh, bisub lambinas fii si Masaalikul Jinaan niki nag kon gaaw bi ñu dëgmal incha allah bis beeg nu muy tëddeeg li si biir yëpp sëñ maam Cheikh Jaxate mii incha allah dina si dikk léegi léegi gannaaw nag siñ Maamour bu ñu la joxee kàddu gi mm-hmm. ndax nag bu ñu ne lambinaas mm-hmm. am na taarix bi tax ñuy wax lambinaas. lan mooy lambinaas sëñ Maamour. tubarkalla lan mooy taarixu lambinaas. sëñ Aliou Badara yàlla dafa dogal xam nga tukki bi moom Cheikh Ibra gunge sëriñ bi waaye Cheikh Ibra ko ter booba it sëriñ bi bëri woon na ay kër yu ko Cheikh Ibra Fall sancaloon fii ci Ndakaaru sax wax nañ ne sancal na ko fi fi ñuy wax yàq jëf ak fii ci HLM fii ci Madiaye Sall bi fii waaye Lambinaas nag li tax ba tey murid yi di ko fàttaliku mu tegu ci loxol sëñ Cheikh Bintu mooy fa la sëriñ bi wàcc te sëñ bi nag moom fum wàcc bu yemut ak fu fu wàccu moo tax turu Lambinaas am bayre te siiw ndax sëriñ bi dafa wàcc li ci gën a yéeme sax mooy dafa fekk ñuy séentu màggalu Daaru Salaam

tam ànd ak ñoom beles ak ngalandu ju photo boobu ci boobu la sëñ Moussa Ka nee na Cheikh Ibra fii fii la teg sëriñ bi daw ak moom dalal ko këram nga ci la menace sëñ Moussa Ka nee nag nee na sëriñ bi fanaan na fa waaw la menace ma ngoo keroog murid yi bëgg nañ mbëgte moo xamante ne jooyloo na waaw kon <laughs> sëñ Tuubaa Cheikh Ibra sëñ Tuubaa fanaan na fi kër Cheikh Ibra <laughs> kon daal ñaari kër a ngi nii yoo xam ne lu ci nekk te sax nag li ciy tawfeex ji sax te yéeme mooy lu ca nekk cër la ci cërub sëñ Ablaye Fall Ndar ci kër Cheikh Ibra waaw ndax dégg naa sëñ sëñ jiili ami kolle ngumba dégg naa ko fa de ngumba ngumba ak laminaas gii mooy kër yi Cheikh sëñ Touba wàcc bi mu nekkee ci tukki bi ci kër Cheikh Ibra kon cërub sëñ Ablaye Fall Ndar waaye cëru cërub Cheikh Moudou Ablaye Fall Ndar la mooy koro ba mu wàccee nguba Baye Ibrahima Thiam nee na man mii la sëñ Cheikh Ibra Fall jox caabi kër ga maa ko ubbil ku tedd ki sëñ bi wàcc na nguba ci kër ga te gis naa sëñ ji li amee koo leen yeesal kër moom dama laa bëgg a wax cër bi sëñ Ablaye Fall Ndar ak sëñ Moudou Ablaye am ci Cheikh Ibra moo tax ma bëgg moo tax ma bëgg koo tàmbalee foo xam ne ndax Lambinaas ak sëñ Moudou Ablaye la ñuy waxtaanee te ñii ma wax ñii ñëpp leeri sëñ Moudou Ablaye teji jii Laminaas bim am ñu koy ko fi ci dakaru Serigne Cheikh Bintou Fall diko wote hmm lum nak da am lu ñuy fatali waaw lim ñuy fatali moy moy manam euh, serigne mourab lay daf ñu dimbali ci Cheikh Ibra Fall te ñun ñi nga xamné dañ daan faral di gëstu di ñëw diko laaj ak di ñëw diko ko dékk suñu micro muy waxtaan ak xam nañ ne dimbali nañu ci maam Cheikh Ibrahima Fall loolee nag du hasard faw rek liggéey boobu dafay des moo waral ma wax la la ñaari barab yii fu ci nekk sëñ Tuubaa bi mu nekk ci liggéey boobu ba wàcc ci kër Cheikh Ibrahima te loola taxoon Cheikh Ibrahima Fall doon sañ ci kër yi Cheikh Ibrahima sañ lu ko woon du kër gu ñuy doon ndonu kon bu doon looloo kon tey jii diggante biir Dakar plateau pale fépp ay immeuble lay doon yoo xamante bi njabootu maam Cheikh Ibrahima ah te tey ji kenn ku sant faal ko fay fayee ko xawma ko man ñu ne immeuble bi moo ko moom wala dara kon lu taxoon Seex Ibra jëndoon kër gi ba tax mu wàcc fa sëñ mooy lan mooy Baye Ibrahima Thiam nee na bëggul Seex Ibra Faal dafa wax dafa wax ne sëñ Touba de Touba bi koy delloo si xam nañ ne ci bato bi lañ koy jaarale wala ci saxaar gi te bëggoon ñu koy wàcc fenn fu muy tombaranke fu mu dugg. li li li firndeel loolu. Mhm. li firndeel rek la doon dàkk ak mhm. bëggam. Mhm. mooy foofa boofa suñu taw wàccee daf ko ko joxaat da caa pare waaw da ciy pare da caa pare léegi nag loola nag mooy li sëñ Mor Abdoulaye doon topp ci gundam ci ay titre foncier Cheikh Ibra ci ay cëri Cheikh Ibra Fall ci ay barab maam Cheikh ci ak njabootam muy lu mu doon topp ndax gannaaw bi nga xamante ni bii moom it gane na jamono ci ay wayjur yu baax muy sëñ Abdoulaye Fall Ndar nga xam ne doy na sëkk ñu ne sëñ Abdoulaye sa wayjur rek ndax seigne blay Cheikh Ibra koy tanal wéju ku ne xam na ne gendar la ndare ndandeen dëkk ñun dem nañ fa def na ah te ci bir yirim ma ñu wad ak Asta njay njare ma jur mam fatfal wad day mbokam kon ñom keur ndayam moy keur bayam mu tawlo ci seigne Fallou Fall sëñ Ablaye soxna Roxaya ñu gané jamono ndar seigne Fallou Fall mom waaw ndax ndax xam nga ni fim mu ne nii mm-hmm. rekk sëñ Cheikh Bintu mm-hmm. sëñ Cheikh Bintu di léppam nag wax dëgg yàlla mm-hmm. di sëriñam di xaritam di di di di léppam di sëriñ Cheikh Fall Khady Gueye xam nga ne ca Paris mu si taxaw taxawaay bu am solo wax dëgg yàlla di fa liggéeyal magam ju tedd ji di fa liggéeyal waajuram ju tedd bi si sëñ Fallou Fall ndax na xam nga ne arc de triomphe foofu euh, maanaam am fa loo xamante ni mm-hmm. néewaa na nga dégg maanaam ay étranger mm-hmm. yu fa am accès si bis boo xamante ni bis bu symbolique la ca waa France waaye xam nga noo xam nga sëñ Modou Ablaye dafa xam li xew ndax moo ma nekk li man ndax bàyyil xel ne sëñ Fallou Falloum Cheikh Ibrahima bàyyi woon soxna suñu wax soxna Bintu Sow soxna Bintu Sow moomee moom la sëñ Ablaye Fall ndar njëkk a denc taawloo ci sëñ Cheikh Bintu Fall sëñ Modou Ablaye moom ma ko wax moo ma ne man du ma taawam de barki sëñ Fall ma ne ko amoon ah, ma Cheikh Bintu Fall mooy taaw moom la dippe sëñ Cheikh Bintu mi moo tax keroog ba ma ko fekkee tuubaatul na ko ñun kat dañoo bëgg a waxtaanee sëñ Fallu Fallum Cheikh Ibra Fall waxtu timis de sëñ laat li may wax ni fekke na ko barki Cheikh Ibra Fall tuubaatul la ko fekk ca këram mu ne ma bi bis baa danaa fa yabal sëñ Cheikh Bintu ndax mbirum sëñ Fallou faal ci loxoom laa ko teg sëñ mu dam laay ma wax la kon loolu day wane nekkoon kon naka jekk ñoom lii lañ xam sëñ Cheikh Bintu ndax lii la leen seen wayjur nàmpatal muy lan mooy gëstu su suuf su Cheikh Ibra Fall ndax bañ ko fekkee caaka njaay ci doomi Cheikh Ibra ya fa tëdd ak wëllëre ya mboolem ku fa Cheikh Ibra amoon ci wëllëre sëñ Cheikh Bintu joxañ nañu ko ndax ndar ay nitu yàlla yu mag a fa tëdd te ay wóllë réew Cheikh Ibra lañu woon ma tàmbalee ko maam Ndiakha Cissé sëñ Mor sàmba Diéri Niang maam As Camara El Hadj Amadou maam Cheikh Samba Diarra Mbaye ma nga fa tëdd Cheikh Sadio maam Namsa Kayta ñoom ñëpp seen i bàmmeel la nga caaka njaay te ñooñu Cheikh Ibra ndar la leen te am na ci ñoo xam ni wëllërew sëriñ bi lañ jaxasoo woon nañoo sëriñ ba ci maam Namsa Kayta ca Gabon ak te tey gis nga niñ mujjoon ndax ñoo dalal Cheikh Ibra Fall ndar maam alaaji Malick dëkkaloo na Cheikh Ibra dëkk Gendar ñu ñu jaxasoo yo loo yo te tey doomi Cheikh Rafal yaa ngi tëdd foofu am na ñooñ bañ génnee àddina ca Ndar ay kilifa lañ dañ ne leen dañoo wax ne ñoom ñi nga sàkku ñu denc leen ci wattu njabootu Cheikh Rafal man na xam mën naa ci lim yu bari te te loolee sëñ Modou Ablaye te xeeroo barab boobee ah kon boo doon tudd ci barab yooyu di jeex loolu moo indi histoire làmminaas ngir sëñ Cheikh Bintou parce que la waajuram tegoon tànkam di ko xeeñtu loolu rek lay xeeñtu mooy source lu Seex Ibra Faal doon dara lu ne mu bëgg indi cosaan la leeral nit ñi ba mu leer nañ ci ne xoolal tey jii Paris 8 mai bi nga tudd léegi moo jóge fii dem dafa demal boppam te te tey seen yitte moo ko rakkam ju baax ji sëñ Seex Faal Xadiga yi seen yitte yëpp mooy tubaab yi wane sëñ Fallu fa te sëñ Fallu ba ba mu demee 14 la solo des fa li lay xamal ne dañ leen a waajal moo tax tey ndarfaal la ñu war a waxtaane dañ leen a waajal ndax waajal gi mooy bàyyil xel koo bokkal ndey ak bàyyi Cheikh Ibrahima yabal sëñ Fallou Fall mu dem des fa ñu dikk wax ko ko mu na nañu waajal sëñ Ablaye Fall Ndar mu dem ñu ci des ne fi te ñaar ñi bokk ndey ak bàyyi te ñaari góor képp la maam Fat Fall Wade am loolu nag def na ko ay ay xaal ndax tamit ah ñeewante na leen sëñ Fallou des na fa sëñ Ablaye rek la desee ba ko jooytoo ba ñëw fi Cheikh Ibrahima sëñ Mourou Ablaye moo ma nettali billaahi nee na. Cheikh Ibra Fall daf ko ne demal te muñ toog Ablaye Fall mii dina dem ba desiwaat toog di man ci sama sées bi te yow yow àjjana wax ma ko 1953 sëñ la laa ko le 27 décembre 1953 mag ñi nee nañ ñu ñaane ko le 2 avril 1954 sëñ Ablaye Fall da toog xalifa ba kañ 1975 vingt ans yu teg sëñ Ablaye Ngundoom sëñ Ablaye Carrière Carrière Baye Cheikh Wade Ndiaye ma wax mi ngi may dégg yàlla na ko fi yàlla yàggal ma nga nooto nee ma carrière ga sëñ lu ñëwee sol njaxas na man lu Baay Fall laa waay manaa mënuma carrière sëñ Ablaay Fall dara sengum ñaari néeg koroog ba muy ñëw Seex Taal ga la ko doon xàllal sama bàyyi ma nettali nee na maa nga fekk kenn nettalu ma maa ko dund koroog sengum ñaari néeg la sëñ laay dal sëñ Fallu dal ci benn bi am na ñu ca xew sax nag fàttewu ko waaye du jàll ci rajo waaye fàttewu ko de waaye loolu lépp pour wax na la kon lii wàccaay la nag tey jii fi mu dafa mat fàttaliku ñu xam ne Cheikh Ibra moo téye woon suuf si ngir ku tedd ki dalal ko fi nga xam ne loolu moo war a kër gi ca Ngumba loolu moo war a kër ga ca Kébémer loolu moo war a kër ga ca Thiès semaine de fer loolu moo waral kër ga ca euh, Louga Louga sax Louga sëñ mo sëñ Cheikh Mbaye Yaara moo ma ne maa sëñ Mortala Fall ànd nañu sunu ñeent borne Cheikh Ibra Fall ci Louga waaw kon Cheikh Ibra Fall suuf yépp loolu ko sababoon moo tax bisu fàttali ko Lambinaas nag na murid yi xam ne mooy wàcc gi sëñ Touba wàccoon ci kër Cheikh Ibra loolu murid yépp ko war a fàttaliku mais sëñ Cheikh bi da ci am tawfeex waaye nag murid yi nag am na lu leen ci war la leen ci war mooy lan mooy nañu wuy si te Masaalikul Jinaan gi lañ koy defee samedi ñun ñëpp ñu àndandoo dund ne sëñ Touba kat 11 novembre 1902 ba tukki ba matee géej gi laay wax de. te sax mat na ndax gannar mom ak pay lu doon jëli rek waaw gannar mom dañ ko doon fay ndax seigne Abdoulaye borom dër seigne ibrahim Mbacke soxna Aminta Mbacke gannar mom pay ga lu doon jëli mënu fo woon ñak ñàkk dem ndax pay ga pay ga taxoon seigne Abdou fa teen la gane jamono seen wayjuru jigen na fa lañ jugge waye ba tukki Gabon ba jexé nak ba nga xamanteni seigne Touba 1902 ba wacc fi fi ci port bi Cheikh Rafa la ko tek fi daaw ak mum ci kërëm bi ci wala ñu Eh, sëriñ eh, Dame Sène ca Touba Toubarkalla eh, taxawaay am na solo lool wax dëgg yàlla moom ku ku ku ku ku ku histoire ñor ku taarix ñor ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall waaw ah, sëñ sëñ Dame sëñ ñu ngi lay ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla di ab professeur waaye te di ziar bu baax a baax ndeysaan waaye juróom soxna soxna Njéeme Seck ah, ñu ngi koy ziar bu baax a baax foofee ca dëkk bu sell ba di Touba Euh, sëñ Mamour li nga doon wax tubarkàlla dinañ si dikkaat léegi nii ndax nag euh, damay bëgg daam cuun si réalisation bi sëñ Mamour bu bu ne sëñ Mourou Abdoulaye ndeysaan ñu indil ñu sëñ Mourou Abdoulaye mbokk yi bu bu ne sëñ Abdoulaye Fall Ndar ñu woon na ko bu nee jàmbaar ji sëñ Cheikh Bintou Fall mu ngi noonu gis nga ko mu ngi noonu sëñ Cheikh Bintou mooy borom lambinaas ndax nag cëram la fi mu ne nii gis nga moom la ko maamam ju tedd ja cërale hmm. juróom benn at si ren muy taxaw loole li hmm. fekk àdduna baa ngi fii hmm. ñuy bàyyi xel ni lambinaas ndax bii lii lu tax mu am solo mhm. maanaam day tax génération yi di ñëw mhm. ñu mujjee ñëw rek maanaam mën a xam taarixu lambinaas mhm. ubbil na leen bunt boo xëy ni ku gëstu tuuti da nga xam la mooy maa lambinaas te li gën a yéeme mooy li nga wax sànq sëñ Mamour sëñ Tuubaa tukkeem bu réy bi liggéeyam bu réy bi sax laay wax ci géej gi ba mu ñibbisee ci maam Cheikh Ibrahima Fall njëkk wàcc lépp maa la wax léegi mu ànd ak moom ba ca lambinaas googee ngay wax di këram gii nga xamante ne si taarix nee nañ maanaam périmètre bu yaatu woon boo xamante ni tàmbalee na te hôpital principal euh, wetu hôpital principal ndax jamono jooju hôpital principal muy fi dem ba avenue Roume ñëw place de l' indépendance loolu yëpp doonoon suufam mu fa doon mu ngoog mu fa doon bay mbayu mbayu mbayum dër ak mbayum nawet waaw maa la wax léegi waaw ndax lépp fa la daje <laughs> building administratif voilà palais présidentiel ndeysaan euh, euh, euh, port bi ni ñu ko waxee et cetera lépp ngi ci côté boobu maam Cheikh Ibrahima Fall tund moom mm. kon ñu ngi waajal lambinaas dellu siwaat si édition yi njëkk yi ba tey ji si juróom benn édition yi sëñ maam Cheikh jërëjëf sëñ maam yow moom moom gars yi neexal la ah, ah, moom damay sàkku waa Ndar Fall ak képp kuy seetaan émission bi ah. ñii di def ñii def commentaire yi ñi ngi jot message yi ñu ngi leen di sant bu baax damaa bëgg ñu affiché numéro yi sëñ Mamoun ak sëñ Aliou nii ñu leen bëggal ndax sëñ Modou Ablaye moom ku ci waxtaanee ku nekk war nañ laa bëggal bu baax a baax ndax day koo xam ne euh, ñun moom sax mënuñu si waxtaan ñun ñun moom <laughs> mënuñu si waxtaan waaye nag ñu ngi leen di santaat bu baax a baax a baax a baax di wax ni sëñ Alioune hmm. euh, bés la bu am solo ndax gis nga keroog bi gars yi demee ci gouverneur hmm. euh, talaata gi weesu ñoom ci seen bopp seen agenda dañ koo boole ci màggal yi gën a rëy Ndakaaru hmm. ñoo dem ñu inscrire ko tey dem nañ ci maire Grand Dakar bi ñu demee ñoom it ñu firndeel lu mel noonu ndax day bés boo xam ne comme ni ko sëñ Mamoun waxee day bés boo xam ni day maanaam li waral laminaas ndax am na ñoo xam ne bokk nañ ci yoon wi ñu ngi dégg Laminas sax xamuñu dégg dégg turu Laminas ndax Laminas barab la waaye li ko waraloon mooy ngan gu maam Cheikh Ibra comme ni ko sëñ Maamoun defal waxee ngan gu maam Cheikh Ibra doon ganalee sangam bu tedd ci tukkeem gu kawe ga mm-hmm. waaw loolu la Serigne Cheikh Bintu comme li nga wax sànq mu di cëram ndax fa mu tàmbalee daa tàmbalee ndigal lu mu ci am ci baayam mm-hmm. ginnaaw bi mu ko waxtaanee mm-hmm. sëñ Talla ña ngi doon seere mi ngi doon fekke ñu dem ci sëñ Sidi Muxtaar ñu joxe ci ndigal te nag maa ngi leeral ñëpp ni màggalu Lambinaas mooy premier événement wu Baye Fall bi am Masaalikul Jinaan loolu dafa war a leer tamit waaw mooy premier événement bi nga xam ne keroog bi maa ngi fàttaliku bi ñu bi noppee ci màggal gi sëriñ bi boobu Masaalikul Jinaan noppeeku addiyey Lambinaas dugg na ci jumaay ji Masaalikul Jinaan di jumaay Sëriñ yi ji keroog ndax dañoo jaaju dajalee addiyee daa di ko yëkkati jox ko euh, jëwriñ mbakk yu fay. addiya yi de moom sëñ daam seen tàmbali na. man de nee naa ko ah waaw góor nañ na dikk waaw waaw bu na dox na dox kay na dox. Eh, sëñ daam ñu ngi koy jaaw bu daam moom day kenn moom moom taalibi la. Hmm. waaw addiya lambinaas. addiya lambinaas googu. tabbi na si jumaa tabbi ci jumaa yi masaalikul jinaan. Hmm. boobaak léegi ñu koy doxal muy juróom-benn at waaye xam nga sëñ Tuubaa moom eh, mbiram amul tànki ginnaaw. waaw te sëriñ bi damaa wax ne Cheikh day borom jamono. ndax lu ñuy gën di dox rek euh, ñu mel ne yéen ni ngeen koy jàngalee bu ko ni ñëpp jàngalee àdduna ñëpp dinañ xam Cheikh Ibrahima te dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ ko gëstu te dinañ dox ci liggéeyam. Ah, mooy solution ci jàngaleem waaw ndax mooy solution bi. waaw waaye nag gars yi yenn saa yi dañuy waxtaanee loo xam ne duñu waxtaanee lii ta lii lii lii lii lii lii vrai sens mm-hmm. li taxoon Cheikh Ibrahima Fall ñëw jamono. ngir xettali waa jamono ndax dafa ne damaa ñëw ngir génne naafeq yi. Mm-hmm. ci lislaam ak sëñ Bàmba waaw daal na doom naa fekk mun naa julli mun naa wor mm-hmm. waaye munte génn ñaqam te ñaq fi mu nekk dafa sori sëñ maamun te gis nga li ngeen di daj gis nga yoon bi fi mu toll ci liggéey bi ca liggéey Touba ba nga jógee bu Mbàkke ba gis nga diggante bi fi sëñ Amdi Modou Fall Mbende toogeeg léegi li mu ci ay maa ngi dégg sax ju nga koy wax mm-hmm. jox ko sëriñ Muntaxa keroog damaa seetaan benn benn benn benn photo boo xam ne ku dul Cheikh Ibra mënu koo defal kenn mm-hmm. am di Xadi laa gis mu toog ci kaw photo bu yàgg la nag sëñ ba toog ci suuf sëñ bas abdou xaadir toog ci kaw nga xool différence d'âge mhm. waaye la Cheikh Ibra waxoon sëñ Tuubaa ni ko danaa la liggéeyal ba sama bàmmeel di la liggéeyal mhm. li ñu sunu bàyyi bu tedd ba daan daan jàngale muy bàyyi njëga jóg sama boroom yokk ay leeram moom te taas mel ni sax danañ ko bàyyi xel si incha allah incha allah rabbi da daan wax ne sëñ Bamba dafa liggéeyal sëñ Tuubaa ba dafa eh, sëñ Tuubaa dafa liggéeyal Cheikh Ibra ba astafurlah Cheikh Ibrahima dafa liggéeyal sëñ Bàmba ba ne ko bu may doom bu muy bu bu muy jur doom sa jëmm jaa tax doomi sëñ Tuubaa yi ñoo tax waaw nga xool ne loolu noonu mooy dox ba tey mm-hmm. te te gore dafa dafa yem ci moom ndax li tax mu yem ci moom mooy fii nii bépp xeetu euh, teraanga bu nit mën a am ci àdduna mm-hmm. tey boo nekkee su boo nekkee surga am sa sa buur nga di ko liggéeyal yi ci ëpp boo demee ba ba ba ba jëmmi jamono da bëgg mel ni moom. te Cheikh Ibrahima Fall ku ne xam ne ne mënoon naa nekk moom yoon wi nag. sëñ Mamour fii ci sëñ Bamba jógee waaw. moo ko moom mënoon na koo téye. Hmm. ba tey dootoo déggati ay xalif général de Baye Fall xalif général de Mouride. waaye moo jëlaat lépp. Hmm. retracé ko. nangu doon jàmm. nee na sëñ dëkk la maa yoon wu si jëm. waaw <laughs> nga xam ne loolu noonee moom la fi sëtami di doxal ba tey jii nii. borom am na mbokk. waaw man man Ibra Fall may mbokk. may mbokk waaw suñu mërëb laay ko dëgg waxtaan waa ngi ci YouTube bi. dëgg la kon maam mhm. gàcce ngaalaama. waaye nii ngeen koy jàngalee dafa am solo nit ñi di ko di ko di ko di ko jàngalewaat ndax mhm. suñu waaju tedd ji Cheikh Modou Djily Fall yal nañu ko yàlla fayal mhm. daan wax ne maam Cheikh Ibra daan wax ne doom boolewuma leen ak kenn. waaw boolewuma leen ak kenn doom. bu ëllëgee maa leen di fayal sama bopp. Mm-hmm. waaw te bu bu keroog bu mu gën a méttee fu ngeen mënee mën a. yow a mën leen doom mën a. bokkuma ak sëriñ si nga xam ne. Mm-hmm. dafa mel ne foofu sax maam Cheikh Ibrahima am na lu mu ñu leeral. Mm-hmm. bokkuma ak sëriñ si nga xam ne dañuy soppi mu mel. wallaay <laughs> kenn du xam. kenn leen xam. <laughs> kon ñun. ñun ñun ci li ñu ñun li ñu am kenn amu ko mm-hmm. kon nag ma waaye maam Cheikh Ibra mm-hmm. ngeen koy jàngalee mm-hmm. dafa war a wër àdduna te ngi ci sax waaw ma bëggoon wax ni sëñ Maguette yi yow nag wutaloon yoon yow fu la neex aw waaw saa soo ko léegi fi may ñëw xam naa sëñ Maamun sax moom moom waxtaan woowee waaye dama bëgg xamal ñi may setaan sax di ma déglu daara guléet ma ñew ci plateau télé. Ah, ndigal rek maa la wax léegi. waaye dana leen de xam nga ne moom mi mom mi nuru dara nuru na la gone nii rek waye xam nga xam tan tax ma wax ponkal mu toll nii sëñ Mourou Abdoulaye Fall Bar. bu ko yëkëti gor yalla la ndax ben moy mbaa xam nga ne Cheikh Ibrahima dem na ba am juroom ben at mu dëkk jamono. 1936 ca Kaolack. dèjà 1936 ca Kaolack. Mhm. te ba mu jamono li gëna doy kéemtaan tan la wax. Mhm. bayam sëñ Mourou Moustapha Fall nga xam ne ñaara ko sot mm-hmm. mm-hmm. muy sëñ Ablaye Fall Ndar bàyyam Cheikh Moustapha Fall ah <laughs> kooku moo dox ak tànkam ba Ndakaaru seet si ko moom moom sëñ Modou Ablaye maa la wax lii fii ci këram gan moom sëñ maam Cheikh waaw ah? tey <laughs> dafa noonu ko ñaari yoon de waaye du suñu njàmbaar ne bu baax rek du toog ci télé waaye tey faaw mu toog maa la wax lii wax loolu laa bëgg a wax Abdoulaye Fall <laughs> xadiroo bilaabal xaadiroo fal jili faal seet nga laa ilaa inshallah someday sen documentaire bobu pour yaatal jappon ko masalik biñu biñu ñëw di laaj programme bi di laaj bis ñu leen sëñ Cheikh Bintu day amal bis bobu daf ko jël ngir laminaas ñu ko si sëñ bi sëñ bi bolé bolé ak ñoom mo ma wax ak ñoom muy mohammed Baye Fall nga xam ngeen ko. ah ñu ngi koy ziar bu baax Fall ñu ngi koy ziar bu baax muy ko am pastef di ma dëgg la ndoy sa eh, biñ ci jokkee ñoom sax ñoom ñëw nañ ba masalikul jinan dimanche bay lat sëñ Muntaxa di ñëw ñu daje fa waa kuréel bi waxtaan wax ñu ni ñu bëggee bis bi ñoom lañ fas yéene incha allah bu ñu tàmbalee xam naa dégg-dégg programme bis bi dina tàmbalee booru yi euh, ginnaaw timis. ginnaaw timis waaw 19 heures daal lañ ko bëgg. Mm-hmm. ndax sëñ bi nee bëggul ñu tàmbali euh, di dog mm-hmm. maanaam julli gee yooyu day bëgg bàyyi ba gars yi julli ba noppi. Mm-hmm. ñu tàmbali bu ñu demee ba gee. ñu taxaw gars yi gars yi ndax jumaa ji looloo ko tax a jóg. waaw léegi. Euh, cérémonie officielle bi moo ciy tegu ndax ñoom seen projection bi une heure lay doon mm-hmm. bu nu noppee zikrullah dina ko ubbi ku mel ne sëñ Mbay Lawbe mm-hmm. di taalibi ci kër gi sëñ Xaadim Pen di taalibi ci kër gi ak waa ndarfaal gi yëpp ak waa mboolem waa daara ji ñooy ubbi sikkar si duggal sëñ bi ci biir bu nu noppee cérémonie officielle bi daal di tàmbali ci biir cérémonie officielle bi bëgg nañ ci am na lu ci sëñ bi namm muy euh, daayira étudiants yi am na yaatal bu ñu bëgg yaatal ci sàmmam Cheikh Ibra ak liggéeyu La Menace mhm. sëñ Fallou Mbaye Ndar Fall TV ñu ngi koy ziar moo koy mhm. jiite ci ndigalu sëriñ bi ci ndigalu sëriñ bi waaw mhm. euh, sëriñ bi nag ren dafa fas yéene xam naa sëñ Mamoun loolu moom xam naa sa sa mbir la da cee fas yéene rendre hommage sa waa ji sëñ Cheikh Jëm Fall di bàyyam di léppam taxaw ko fu nekk waaw da ko cee fas yéene ba noppi bokk na ci bisi yi sëñ bi ñi ko ñi ko dara jaale di sëñ Fallou Kan mhm. ambassadeur ñu tuddee ko woon sëñ Fallou Fall dëkkoon njaaram mhm. waaw waaw bokk na ci ñi ko sëñ bi ñu tudd ñëpp di nga si ñëw incha allah ak mboolem xaritam mm. ku mel ne Baba Ndiaye Soko mi mm-hmm. sëñ bi eh, nga xam ne di wëllëri sëñ bi yàgg ak moom lool mm-hmm. yàgg ko defal teraanga ñu ànd fu nekk keroog dañ koo seeti moom mm-hmm. loo xam ne faaw dina ko fësal fii ngi hmm. ko setti diko wax bes bi mo may engagement yum ci jël mom hmm. Baba ndjay hmm. mu ne mom liko yem moy dafa yag ànd ak sëñ Cheikh bintou waaye nee na moom musul xam yoy daf ko xawa jël nee dan dan daan daan fenn ñu jox jël ay addiya jox ko seigne Cheikh bintou fa nee buñ ko ko joxe nee mom limu xamone moy nit bo àndee mom buñ la joxe dara muy teranga xeyna sax mën nga fonk sa baay ba mën nga jël dara denk dara waye nee lepp lay jël jox ko seigne Modou lay moom moo seere loolu keroog m hmm. sëñ bi loolu tax amul dara suñ ñi di sax xam nga ni suñu ceeb bintu amul dara am nañ ci lu leer de ah. doguma la mooy bokk na ci li mujj indi sëñ mu dab lay mm-hmm. lu ko sëñ bi doon wutloo ay weer la mm-hmm. c'est Paris boo ko gisee laaj ko ñoo mm-hmm. ko indi marché yàlla ba ñoo ko jëlee France ndax bis dafa fekk booba euh, maanaam mu jógee ci bisub maam Cheikh bi daal di daal di daal di ñëw sëñ bi sant ko pour mu yegg si mu ñëw mu mu dellu si ci réew mi mm-hmm. ñun ñoo indaali weer yooyu nga xam bi ñu ko indee mm-hmm. daanaka ak bi sëñ bi dem benn mm-hmm. <laughs> waaw pour wax la rek na la na la moom naka jekk yitte yi way jur wa rek la doon dam te loolu xam ko ndax lii nga wax ci sëñ Cheikh jëmm léegi ba da koy rendre hommage am nañ ci loolu leer ci maanaam maanaam laxasaay yi nga xam ne daana ko xottil sëñ Cheikh mhm. maa ngi ciy siyaat bu baax bàyyi Youssou Dieng Touba. baax mi ngi koy waajal bàyyi Youssou Dieng la ko sëñ bi liggéey boobu moo koy doxal ndax daaw ñun ñii bokk nañ ci ñi mujjee siyaar ak daam seen mii. Mhm. Baye Youssou Dieng Alioune Badara jaax di taal bi sëñ bi mhm. ci ñu mujjee siyaare sëñ Cheikh Jëmm Fall laata ñoo tabaski daaw. waaw ndax valise boobu noonu sëñ bi da koo warlool da koo warlool da koo warlool. man mii seere laa ci. Euh, barigo boo xam ne barigo euh, vitamine garabu garab garabu garabu garab boo xam ne ay garab yoo xam ne garab yu yuy faj mag la yu baax ci mag. vitamine waaw ay vitamine ak ay xeetu garab mm. yoo xam ne sëriñ bi da koo commandé benn xaritam bu nekk euh, France. ci sama tur lañ ko def man mi maa ko récupéré maa ko jox Baara mu yóbbu ko sëriñ bi. liggéey boobu nag mi ngi wéy. Mm-hmm. ba ren jii sëñ bi mu ngi koy waajalal sëñ am di Maodo man dëgg la ñu ngi ñëwaat léegi sëñ bi sëñ bi sëñ Mamour def na lu rëy bu mu tuddee suñu waaje sëñ Cheikh jëmb sama yaram bi dafa daw fas ko allah nee na rendre hommage si bis bii sëriñ Cheikh jëmb Fall di si Cheikh bu baax sëñ Mbëggey Ñang ak sëriñ Omar Dumbuya ñaari jàmbar yooyu nga xamante ni maam ku tudd sëriñ Cheikh jëmb ñoom ñoom li leen di ñaanal mooy suñu borom na leen fi yàggal lool te ñaan waaw ndax maanaam dañoo ci liggéey ak ñoo ko tertu ànd sëñ Cheikh donc ci wetu kanamu sëñ ci kanamu sëñ bi hmm boobu sëriñ baa ngi jottali liggéey bi ñu dem ci stade ba sëñ magay ci sëñ magay ak sëñ ak sëriñ awar dugg mu nekk xam na xola jambar yi bo leen gisee melaw sëñ Cheikh jëm rek nga gis ci teel la ndeysaan wax dëgg yàlla sëñ Cheikh jëmb moomu waaw yalla suñu borom dolli ngërëmam amin ñu de sëñ Mamour mom rek lañ xam ndeysaan waaw dama xamoon dimbali ci boppam lool ci luñ mëna wax ak luñ mënta wax waaw moo tax faw nag lii sëñ Cheikh Bintu def hmm mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall la ko defal. waaye ñun ñii la ko defal. waaw ñun kay kon nag bis ba moom. ñun bu ñu neexee woote si suñu wooteeg bopp ñu ne. muy samedi bii di ñëw Lambinaas. Mm-hmm. waaw ñëpp nañu takku ñëw. Mm-hmm. fekk si sëñ Cheikh Bintou Fall ndax lii mu def dafa rëy loolu wax dëgg yàlla. waaw xam nga sëñ Modou Ablaye. Mm-hmm. mas na maa wax waxtu ndogu di waaj dem waxtaan woo sax bokk na ci waxtaan wu ñu mujj defal ñu mu ne lii ma def. liggéey liggéey bii mhm. muy liggéey ndog yi day ndigal loo xam ne ab leetar moo fekk fii bàyyi ko ci si Abdoulaye Mbacke mhm. daana wax ne waaye ñun yaakaar ñun ñi bokk serafal yépp sëñ Cheikh jëm mii muy muy suñu bunt ndax mooy maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. loolu ñu ngi nga xam ne saa bu masaane yëkkati kàddoom di waxtaan ak ñun ci vidéo yi ñu am ak moom ci sëñ Cheikh jëm bu lay tàmbali te maa ngi fàttaliku de buñ masaane nekk xel ko ba sëñ mu demante yee taxawaaye ma am na ci vidéo yoo xam sax boo xoolee gis ko nii la daa toogee ci wetu Cheikh Boubou mu sëñ mu loolu fekk naa gis naa vidéo yi muy daw ci internet kon moom naka jekk ñi bokkal Cheikh Ibra Fall la mas a def ak ñoom naa day këram kum tuddewul doom hmm? kon loolu ak jaxasoo la kër Cheikh Ibra gépp benn bopp te loolu la ñuy dund ñoom ci seen biir te boo jaxasoo ñoom xam ko mbaa boo def toog ci ñoom Lola nak kuñ ca tagat ba nga tollu fi nga toll faaw da nga xam yoon wax seigne Cheikh djum dog na seigne seigne Cheikh Bintu dog na yoon wi dog na yoon wi ndax ndax xam na ne seigne Cheikh djum mi mu dara jaare bis bi bayam seigne Mourou Moussa Fall lañ joxoon moy djuroom ba pare dippé ko ko seigne Mourou lay Cheikh Mourou Moussa Fall lañ ko dippé ba pare jox ko ko kon lepp seigne seigne seigne Mourou lay Cheikh Mourou nga xam ne nee naa la ñaari jàmbaar la ko séqal muy sëñ Ablaay mi nga xam ne Cheikh Ibra wax na ci moom wax ju ju siiw nga sëñ Ablaay garaat yi mu boole woon moo yombul ma wax la am na ngërëmal sëñ Tuubaa ci bu wér ndax li gën a yéeme ca soldaar sax mooy bañ jógee bañ ñëwee ci Cheikh Ibra Fall daa ci loxoom ne leen dem leen nuyu seen bàyyi sëñ Bamba ba dikk ma barkelu ci yeen may bu ñanga mako wax de te nee ma sëñ Ablaye moo ko kon am na ngeeramal seigne Touba am ngeeramal bayam waaye sëñ Ablaye liggeel na réewam <laughs> <laughs> liggeel na rew wala dem min kat ba wat siwaat takat li gën garaw moy ñi mujjé ñew ci soldat sa sëñ fal Fall Ndarté la bok mm-hmm. ba ba ba ba ba ba guerre ba jexé itam ñom ño top ci ñafa fa des te am ay blesse ñu di leen top kenn ku ne ñu lay recenser ngir xam fo dekk ak noo tudd Cheikh Moudou Fatma nee na moo tax ñu mujj ñëw mag Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Moudou Fatma Fall nee biñu essé bay nuyu ku tedd ki mam Cheikh ibrahim Fall suñu wéyjur mo banki loxom ne dem leen nuyu doom seigne Bamba bu ngeen dikke ma barki du piyéen sëñ Abdoulaye nee na bu ma dikke nee ku tedd ki man la doon waxal mais nee na sëñ Abdoulaye Fall ndax bi mo waxe sëñ Abdoulaye Fall sëñ Abdoulaye Fall la ma wax nee dama dama dama dama tit tiit na bi nag ne mën ko Fall lu taxati tax ko tollu seigne touba nam seigne sëñ tamay doomi taalibe laa ilaaha illallah fa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal maam seera faal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal maam seera faal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah illallah fa laa ilaaha illallah fa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal Cheikh Mamadou Laay Faal laa ilaaha illallah la ilaha illallah faal maam seera la ilaha illallah la ilaha maam seera fu la góor dee ti la bay xoolal nee na dama xam nga lii day xorom daa mënta ñàkk kan dañ baax na ci yëf rek <laughs> góor a waay <laughs> góor léegi Sëñ Tuubaa nee ne nee na sëñ laay nee na sëñ Touba na ma sëñ Ablaye Fall Ndar nee na nga xam sàllulu ma nee na nee ma ci yéem mooy la ma jaaxal mooy ku toll ni sëñ Touba na ma sëñ damay damay taalibi damay doomi taalibi ki na ma ñooñu ngeen àndaloon muy nasaraan si kuñ liggéeyloo ba noppi ci yow ba di la mosal tuut tuut ci seen wërsëg ni ko tudde nee ma ne ko xanaa à la traité mu ne ma yegg naa fa ak yéen nee ma li des ci seen dund yëpp ci sutura ngeen du mat ku ci faat mu dugal àjjana mooy usul boobu muy wax fa jógee Cheikh Moudou Fatma nee na ba ñuy jub Cheikh Ibrahima nak sama bàyyi Cheikh Ibrahima man la waxal mm. Cheikh Moudou Fatma mais dañ ko jup ci mu ma Cheikh mu ne ko Fall mu ma ndax xam nga déexañ le mu ne ko Fall luy déexañ le mu ma ñaar ñu yëg mbir kee fax fële kee fax kee jutu ka top ci moy déexañ le mm-hmm. nama dom seen gal go bu bënnee ci soldat ci ca yoon wax lu ngeen mujjé mm-hmm. ñu nak xana xanaa dajaloo di sikkar rek ba jamm dik sé rafal muñ a ah dom nak la bënn ma yëg ko Bamba yëg ñu déexañ la dom mm-hmm. nee na mu jitu sëñ Bamba jitu nee na ronu suuf sa ronu ndox mu yenu bop gal mu may nu geen ba daan na ma xanaa gaal gi diwul mu ne ko mën a ma defe naa du diig te gis naa ci waxtaanu Mouride Sall sëñ Modou Ablaye sa waaji nee na koroog ba gaal ga bëttee bàyyi seex daal ga la def ne seerafal nee na ba gaal ga bëttee gaal ga da doon bëtt na waaye du diig ñu ne tekk mën a sëñ ba mën a jabo mën a ci genn ba <laughs> kon mën a la sëñ Ablaye Fall Ndar làq na ngërëmal sëñ Touba ci lu wér ndax sëñ Touba yi attaaya ci loxol boppam di leen ko xellil sëñ Ablaye nee na koroog war nga wa bu ko sëñ Touba leengee da koy teg ci def ci benn kaas nee na di xel ñu Ndar lay bañ kon lak na ngeureumal ku tedd lak ngeureumal bayam nah Cheikh rafal ba fa magam dessé Cheikh rafal dafa wax na nañ waajal sëñ Ablaye Fall dar te bobu sëñ Fallu Fall samp na keur samp daara yor ak njabot yor ak soxna ba paré amon na sax pour tànk ku ñëw sëñ Mbàkke Fall kooku la Cheikh bi ndek gis ci seul waye teewul ba paré nak mu do mënu sëb sëñ itam gis nga lal yi ci bir keur gu mag gi Fallu Fall ak Cheikh Fatak ku jom ay lañ won ci bir keur bi ñoo daj lal ak gaal kon liggéeyal na ku tedd ki fekk nañ seigne touba ci yeen jorof kon am nañ ngërëmal seigne touba ci bu wër am ngërëmal sëñ rafal waye seigne Ablaye seex san seex loolu waaw kay nit ñi xam garaat kay xam nañ ko sëñ seex li wax mi may seetaan njaboot gaa may seetaan kon liggéeyal na sëñ tubaa liggéeyal sëñ rafal liggéeyal na réewam waaw ah seex ah, waa dem nañ fa ca ndar dem nañ fa ba ay diplôme la fa ba ñu ko li a la ji jur ak ndax yirim ba ñu ak Asta Ndiaye njëriñ waaw ñoo jumaa Fat Fall Wade ñu lepp ñuy lepp Cheikh rafal kon nak lool lepp da nga cee xamé ne kon Cheikh Ibra da koo waajal waral nak njambaram ak pëstéefam ah seigne Fallu da xam nga seigne Ibrahima fallu mun doom ak carrière bi de mom seigne blay sama baye ma nekk yo fekke ñom loolu yagul bi euh seigne blay amon na kër fii si ah ahadi maa ngi siyaare sëñ Lamine Seck ñoom. Mhm. Lamine sekk di taalibe bokk ci lamination mhm. eh, keroog sëñ bi. Mhm. bis bi ñuy ubbi eh, Masaalikul Jinaan sëñ bi damaa booleeg yaakaar naa magam bu jigéen ne ma ñoom ñii xam nañ kër gi boo demee ba foofu danañ la fa wax ndax xamoon nga ne ci jamonoy carrière bi amoon na ko sama bàyyi la ko jaayloo ñu def ko ci liggéey bi bàyyi Cheikh Jaxate mi yàlla ko sama borom dolli ay ngërëm moo ko nekkuloon fii Sow maa ngi koy ñaanal di siyaare njabootam gi sama kër gi yëpp sama ndey di ñaan mu yàgg fi te ak njabootam gi yëpp yëpp yëpp moom moo ko jaay man mii teg naa sama bët ay kayit yoo xam ne sëñ Ablaye Fall Ndar jox na ko autorisé ko bépp lu mës lu mu mën a lu muy doxal fii ci sow mm-hmm. te bi mu fi jógee sëñ Modou Ablaye ko da ko yeesal ci moom da ko fekk naa ko Ndar mm-hmm. deux mille deux mille treize mm-hmm. waaw ñaari rakk yi nga xam ne li koy jiitu bisu Cheikh Ibrahima moo koy jiitu waaw keroog bi ñuy siyaare bi ñuy dugg ndar mi ngi taw suñ Cheikh Ndigal Fall moo ne suñu kanam di siyaare sëñ bi maa ngi dégg keroog mu koy wax ne mhm. damaa dugg dégg ne yaa ngi fi moo ma accès bi mhm. ñuy dugg sax ñun ñu ngi ñu ngi tooy mhm. eh, sëñ baa ngi wax naan ko de sa maam Modou Moussa Fall de di sama turando maa ngi moom noonu nga toogee daan na daan na nekkandoo waaye mosuma bokk moom néeg fii fii laa daan toog mu nekk ci néeg bi ma nekk ci biti keroog moo ma leeral ne ma sa baay maag moom daan nañ ànd di laajal sëñ ablaay Fall Ndar addi muy ni ko bàyyi sëñ jóob di defee daan mm-hmm. defee nii ak sëñ Aziz Fall mm-hmm. wala sëñ Sohib Fall ah. waaw mm-hmm. nga xam ne sëñ Ablaye Fall Ndar li Cheikh Ibra Fall waxoon samay samay sama njaboot li ñu doon wax sànq ne Baye Ndiaga Diop loolu lañu digg mu wax ci moom loolu bokk na ci lu gën a marqué mooy lu muy jur samay doom yi doomi sëñ Bàmba yi tax ndax xam nga moom ruusoon na doomu sëñ Bàmba di làkk tubaab maa ngi dégg benn bi sax ngay nettali histoire bi sëñ Modou Moussa Fall ba tubaab bay ñëw. waaw mu war a nuyu sëñ Modou Moussa Mbacke sëñ Modou Moussa Fall ñëw taxaw. jox jàmbaar jooju waaw jigéen la. jigéen la. waaw tubaab bi dafa dafa gouverneur ndar bi la dafa nuyu sëñ Modou Moussa Fall. waaw dafa nuyu sëñ Modou Moussa Mbacke. waaw Cheikh Moussa Fall la ngi taxaw ci wetu sëñ Modou Moussa Mbacke. waaw waaw. bi bi gouverneur joxee loxo Cheikh Moussa Mbacke. waaw sëñ Mourou Moussa Fall gis na né jabar gouverneur bi jabaram ji mu àndal dana jox dana bëgg jox loxo Cheikh Mourou Moussa Mbacké te sëñ Mourou Moussa du ko jox loxo ba paré way bëgg ko ñak wor ma manam ngir bañ ko jox loxo Cheikh Moussa Fall nak lolé la doon la doon dox bimu dikké ba taxaw ci wetu Cheikh Mourou Moussa Mbacké mhm. bi gouverneur na jëy loxom mhm. ba nuyo bu nopi mom mhm. loola mom jaxlu ko waye bi ndaw si ne jëyi loxom nag ta faaw ndaw si moom mu jox ko loxo mhm. mhm. moom moom suñ Moustapha jël loxoom na jàpp ndaw si jàllale ko ne ko kii du nuyu jigéen waaye bu ci dara jaaxal Cheikh Ibra Fall nekkoon mhm. Mouhamadou Moustapha Fall la ko wax ne ko fu ngeen dajeeg njabootu sëñ Bamba la war a takk ñoom ne leen takk yéen ngeen yóbbu tuuma ñoom ñu set ne ko càng gi ak njaam jee fi des jël leen càng gi jox sëñ Bamba te téye njaam gi su ngeen ko defee da leen ba seen njaam gi sax yéen mooy gën ci yéen càng gi ñun ñëpp njaam ngeen ñu dàqal. wallaay ñun ñëpp ngi ci njaam gi nag. moo tax moo tax loola nag loolu. mooy li nga wax léegi. Mm-hmm. Mm-hmm. Cheikh Ibra moom njabootam gii. Mm-hmm. njabootu sëñ Bàmba gi rek a taxoon. ndax moom loolu rek la ko waxoon. ba may jur sa sama doom yi. sa doom yi tax te kenn ku ci nekk laa la wax ci ñoom. firnde li rek mooy tey jii Cheikh Mouhamadou Mountakha ak sëñ am ñu Moudou Mbenda. ñoom ñoo ñi ngi fi. mën nañoo yem ci ñoom képp. ndax tey jii nii. sëñ am ni moonu mbenn tudd nga ko léegi mm-hmm. yitteem jëpp mooy lii ko Cheikh Mouhamadou taxaa sant mm-hmm. muy muy mbàkki fee mu sotti mm-hmm. kepp ndax moo tax mu ñëwal fi boppam bërki dem ci koo xam ne fi la la Cheikh Ibra bàyyi wallaahi ah waaye coono yeeg lépp lu mën doon rek daa ñëwal boppam ba ci islam mu toog woo njaboot yépp def soññi kon loolu moo lay xamal ne yitte jëpp mooy loolu waaye nag la fi newoon ba tey moo fi ne yoon bi dara soppiku ci xanaa xamoo ne luy gan samaam Cheikh ne dëkku ci dëgg la gën dëkku yoon bi te dara du hasard nag wax nga ko léegi Cheikh Modou Fall la ko waxoon xam nga sa waaje moo ñu ko nettali suñu dab lay ne Cheikh Ibra Fall neen na ngeen ma xool bu baax xàmme ma bokkuma ak sëriñ si ngay soppi ëllëg ba kenn du leen xàmmee nii ngeen ma xàmmee nii lay wale suuf du ma lekk marché Cheikh du Fall ma la ko wax ne ko suuf du ma lekk doom nii ngeen ma xam ne ni laay dekkwalee kon kon nag li ci des mooy dox te sëñ Cheikh Bintu moom moom dafa xam nga dafa am loo xam ne bu ñu la ca tàggatee ba pare yar la ca da xam li xew ndax ay doo yu mag lañ nag xam nga sànk dama suñu maam Cheikh Jaxate dafa wax lu am solo daf ni bis bi daf si bàyyi xel. Mhm. sëriñ Falilou Kane ambassadeur. waaw sëñ Cheikh Bintu ko am kóllëre la. waaw sëñ Falilou Kane. Mhm. xam nga ni. Mhm. am nañu ak moom suñu borom dolli. leeral wër wër kon sëñ Cheikh Bintu jii bu ko tànnee. bëgg kaa delloo njukkal bàyyi ko xel rendre ko moo ñu ko wax si làmmiñu boppam. ambassadeur. kon sëñ Cheikh Bintu ko am kóllëre la. waaw am parce que xam nga dafa xam ba pare li mooy li wax na la koro sëñ Fallou Kane ambassadeur bàyyi Moustapha Kane la tudd. Mm. sëñ Moustapha kan lañ ko daa wooyee. boo xoolee sax photo sëñ Mourou Moustapha Fall bi mu toogee. Mm. ak sëñ Ablaye sëñ Assane ak sëñ Mourou Mbène ñoom taxaw ci wetam. Mm. ci ginnaawam bàyyi Moustapha Kane a ngi toog ci jotaay boobu. moo defe naa Baye Cheikh Ndiaye xuus ñoo dend. yaa ngi dégg. ak ak Baye Cheikh Ndiaye wësee noog ñoom ñëpp ña nga fa Baye Abdoulaye Dramé Baye Moussa ko la ngi ci suuf. ñoom ñëpp ngeen foto sëñ Moussa bu taxawoon fii moo wax la gars yi yëpp waajur Baye Dame Dramé waaw léegi nag Moussa Baye Moussa Kane moomu keroog ba sëñ maanaam ñeg sëñ Fallou Fall jiite woon ca soldat sa ba sëñ Fallou Fall génne àddina moom mu mujj jiite ñooñu kon Baye Moussa Kane ñoom dañoo dafa yàgg ak lool dafa dafa yàgg léegi nag ba pare xamoon histoire bu baax a baax mooy Baye Fallou Kane nii di jàmbaar lool sëñ Cheikh Bintou nag te moom dafa sëñ Cheikh mooy la wax rek de la woon ca Baye waajuram xam nga sëñ Mourad yittem yépp mo doon ñu xam Cheikh ibrahim mm-hmm. xam ko mm-hmm. ba pare xam lu wax na la xam source xam lu leer mm-hmm. bo xoolee bari na ci barab yu baree baree bari yo xam da ko gëstu ma jox la benn firnde rek mo njare kër sa bi tey jii ñu def barab maam Ahmadou Faro xëy nga xam fu way toll soo jugee fi jëm ndar bo commencé duggu njaañ waxuma la ko warak ngay seen làmp ba muy tàkk mu wóor la ne ne maam Cheikh Ibrahima Fall fii la bàyyam dëkk fii la gën a jamono te foofu la Cheikh Ibrahima a jamono ci tund woowu njare kër saale njare wàqi dañuy séenante mm-hmm. tund njare googu fa la maam Ahmadou Fall roxee di ko ndax maam Seydou Ndiaye jotu woon a dem kër tey sunu jàmbaar ji mm-hmm. Serigne Sidi Diop Baye Fall nga xam ne murtu sëñ Modou Ablaye gëmu kudu sëñ Modou Ablaye Fall ndar ndax lépp sëñ Ablaye moom sëñ Ablaye ko defal lépp ndax xam nga maamam maam mm-hmm. ñi nekk ñi yoroon sëñ Ablaye sëñ Aliou Fall Mor sëñ Assane bi ñuy jàng ndar mag ñi suñ masaana jugee ca ca ca école ba hmm. kër maam Samba Diop ndar lañ daan nekk moo leen daan taxaw ci lu jëm sax ci wàllu dund moo leen ko yoraloon ah mu mu mu meññi Baye Cheikh Diop tudde ko Cheikh Ibra Fall hmm, hmm, moom mooy meññi si si di gisa Diop moom ak sëñ Fallou Fallou Fallou Diop te sëñ Fallou Diop mi itam sëñ Fallou Fall lañ ko tudde moom Cheikh Ibra Fall mooy magam sëñ Siri di jàmbaar ñun ñii fekk nañ ko fa ne ci àdduna bi xam nañ ko bu baax a baax xëy na sax Sénégal mën nga ko bañ a xam waaye boo ko fekkee bitim réew ngay xam moom mooy kan gaynde la te te te la sëñ jom ji sëñ Modou lay def ci moom nga xam ne moom moom rek la lay wax moom mm-hmm. sama waaj mm-hmm. mm-hmm. ndax soññi sëñ Modou Ablaye ku masat xam miin jotaayam rek xam ne moom da lay soññ moom moom fit bi gis naa sax lu mu bind ci biir waxtaanu Mouride Sadia dama koy xool di gis moom xam nga lan la wax sëñ maam sëñ Modou ma da ngay xool da xool jëmm ji rek gis nga jëmm ji rek waaw maanaam képp ku di Baye Fall waaw lii waaw lii mooy Baye Fall lii waaw fi mu boo xoolee jëmm ji waaw photo Cheikh Ibra original waaw maanaam méngalewu ma de waaw waaye sat gi waaw moom laay wax ak personnalité gi waaw gis nga nataal bii dañ ko xool xam ko tey dii waaw dana dana wër àdduna te te dama ko dama koo jaayante mm-hmm. barke maam Cheikh Ibra mm-hmm. muy wane gi mu bëggoon wane maam Cheikh Ibra Fall waaw maanaam lot nañ ci nag waaw lot nañ ci lool lool waaye damay sof rek ci li nga wax nga xam ne moom du jëm ci ay yu bokkoon ci yi gars yi jàpp ne mooy yoon beeg yooyu yëpp. moom daa bëggoon ko correct. waaw ci biir lool sax dama ci siyaaree sama xarit lool. Mm-hmm. di kenn ci man mu sëñ Cheikh Say Fall. sëñ Cheikh Say Fall mu nga xam ne njabootu sëñ Mourab Laye ñëpp a baax ñëpp. maa ngi siyaare ñëpp góor ak jigéen waaye sëñ Cheikh Say day sama xarit. di référence ci yoon wi. ci jamono ji di référence. Mm-hmm. waaw maa ngi baax a baax a baax. xam naa ko bu xam ne baayam da daan wax naan daa am ci moom yaakaar. waaw. yeggale sëñ Maodo. waaw xam naa ni sax sëñ Maodo yeggale bi kan moom li ñu def mooy. Ah. xam nga li li ñu war a def laminage yëpp boo ko defee tey jii moom yaakaar naa ne. gars yi bis ba <laughs> si bis bi rek. waaw bu ko defee moom ñàkkul ni sëñ Maguette mii. waaw yëkkati bu ko defee ñu tàggoog mbokk yi. waaw euh, tàggoog gu dul dog waaw bu ko defee ñoom sax si euh, avant première bi incha allah mm-hmm. dinañ leen ko woon léegi nii si mm-hmm. woote bu rëy woo nga xamante Serigne Cheikh Bintou mm-hmm. yabal na ay ndaw ñu woote ko di ziar bu baax Serigne Fallou Diop di jëwriñu Touba mu ngi bàyyi xel jotaay bu baax a baax moom tamit wax dëgg yàlla bu ko joxe joxe rendez-vous nag bis ba incha allah di nag euh, samedi bi ñu dëgmal mhm. bu boobaa ñi fi sëñ Mamour lim si tàmbali bi boroom xam-xam yu mag yooyu mhm. ak sëriñ Mamour Ndaw mii mhm. incha allah boo fa teewee boo njabootu sëriñ Maodo Abdoulaye Fall Ndar bi incha allahu rabbi bootu si ginnaaw sëriñ Cheikh Bindu Fall ñëw fii ci Lambinaas ci euh, Masaalikul Jinaan mooy Lambinaas rek bu ko defee nag daal di waxtaan suñu maam Cheikh Ibrahima Fall waxtaane sëriñ Abdoulaye Fall Ndar ak sëriñ Maodo bismillah waaw xanaa kon sëñ Aliou ñu tënk ci mm-hmm. daanaka programme rek mm-hmm. ak loo xam ne sëñ bi santoon nañu ko euh, li ma wax rek ci ci tàmbali gi mm-hmm. lépp lu ma fi wax lépp lu fi jub rek nga xam ne sëñ Cheikh Binta la sëñ Mourad Laye waaw ni ma ko waxee sax moom waxee na maanaam sante woon na ma ko nu ko ëppee lu ci dëng rek sama jëmm ju ñàkk solo ji waaw maa ngi ñaan yàlla ñu Cheikh Ibra dimbali ba ñu gën koo bëgg ñun ñii yàlla nañu gën a bëgg maam Cheikh Ibra te di ko liggéey te bu ak lu fi jamono mën a toll ak lu nu mën a am. Mhm. yàlla bu ñu doon dara lu dul ay taalibi Cheikh Ibrahima. waaw sëñ Cheikh Bintu ginnaaw bi fi bàyyam jug nga xam ne sëñ Maamun sax wax na ko bokk na ci li mu yokk ci liggéeyul bàyyam kër mag moom gii. waaw nga xam ne da ko liggéey mu toll ci ay nangam ci ay million ànd koog njabootu Cheikh Modou Ablaye. ànd koog sëñ Mortala Fall. Mhm. ak njabootu sëñ Ablaye Fall Ndar gi yëpp. bokk na ci euh, Touba Ndar Fall Jolof nga xam ne. sëñ bi daan wax mooy sama tali mm-hmm. da ko bëggoon lool Jolof sëñ bi am château d'eau bu mu fa liggéey ba noppi am miir goo xam ne mi ngi koy mu ngi koy mi ngi koy yaatal fi mu toll nii teg ko ci loxo euh, sëñ Talla Niang ak dongo yi fan yi la fa wote woon ak ruuj ñun li ñu fa bàyyi mooy liggéey bii nii mm-hmm. waaw ba noppi bëgg njabootu suñu Modou Abdoulaye ku si ne mu am fu mu la beral nga mën faa bay sa tool mm-hmm. ndax foofu sëñ bee ko baawoon ngir njaboot gi muy suuf su barkeel euh, bokk na ginnaaw bi fi euh, sëñ Cheikh Jëmb Fall mi yàlla sama borom dolli ay ngërëmam jóge mu ne ci wetu sëñ Muntaxa euh, am ay lim ci ay kaamil yoo xam ne sëñ bi dajaloon na ko màggal Touba moom mu ciy soññ kaamil bu nekk ànd ak lim lim ak xaside yi mi ngi ciy soññ mi ngi ci soññ taalibe yi ku ci jëfoon daaw ku ci jëfoon daaw nga yokk ku ci jëfuloon nga waajal ndax ñu ngi koy waajal ndax lettre addi yi tàbbi na suñ toll ni tàbbi na nit ñi ñëpp jot nañ suñuy lettre sëñ bi nee na ku ci jotagut mën ngaa woote mën nañ joxe suñu numéro nga fexee noo ci jotee ndax loolu digal la boole ko ndog yi nga xam ne du ñu wàcc ak tabaski yi du ñu wàcc lim bi at bu gën a yokk booleeg bis bi nga waxoon sànq mm-hmm. muy bisu 8 mai nga xam ne suñu ñu koy ziar bu baax a a ah, baax ñu ngi koy ziar baax a mm-hmm. a lan amoon sama baay jox na ko Mar Ablaye boobu juróomi at lan amoon waaw waaw ñu ngi koy ziar bu baax muy jàmbaar muy jàmbaar lool am kuréel goo xam ne tamit sëriñ bi daan na moom ñu yëkkati ko mm-hmm. muy kuréelu jëf ci kër sëñ Modou Ablaye doon nañ ci waxtaan sëñ sëñ bi nawet bëgg mu gën a yaatu mm-hmm. moom sax daa dem ba xalaat ne nañ ko def kuréelu jëf ci kër sëñ Modou Ablaye waaye jëf ci kër Cheikh Ibra Fall nga xam ne li mu ci xalaat mooy képp benn bëpp buntu këru maam Cheikh Ibra bu amee xew-xew donte day am dara loo xam ne dañuy yëkkati di ko fa def moo xam suukar la moo xam lu mu mën a doon ñu yaatal ko ndax sëñ Modou Ablaye Cheikh Ibra la daan wane mm-hmm. bokk waaw boobu ci la bokk waaw boobu ci la bokk nga xam ne nga xam ne nee na daa dugg siyaar sëñ bi génn rek ndeysaan gis mbir mi liggéey waaw yaramam daw xam nga sëñ Cheikh Bindu waaw day jàmbaar day laaj waaw mu ngi noonu léegi daal moom fi ñuy tëjee moom mooy di woo ñëpp bàyyiwuñ kenn sëñ bi nee na bàyyiwul kenn kenn kilifa diine yëpp sëñ baa ngi leen di woo ñu mm-hmm. ne ci réew mi yëpp kilifa aada yi mbooleem képp kuy jullit di wax ashadu laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah sëñ baa ngi lay woo képp ku bëgg sëriñ Touba sëñ baa ngi lay woo képp ku bëgg maam Cheikh Ibra sëñ baa ngi lay woo mm-hmm. comme ni ko sëñ maamun waxee ndax bis bi bisub sëriñ Touba la ndax sëñ Touba la ca taalibeem bu mag ba doon ganale mm-hmm. di ko ganale ci këram gii di palais présidentiel tey tuddoon Lambinaas moo waral màggalu Lambinaas waa kuréelu Lambinaas ñoo leen di woo du ma leen sax woo dama leen di soññaat bu baax di sama bopp Mm. wa tambali ko seigne Alioune Badara Dia seigne Lamine sek Lamp Mbow goru djop di siyaare bay seigne djop di représentant seigne bi fi di mak waye bàyyiwul batay tey batay tey fu ñuy dem day and ak ñun jël otoom def ci essence ñuy and di siyaare njabotam gi ak seigne sëñ Atumaan Diop bi di siyaare ñom Ousseynou djop ñom Ousseynou Ousseynou ca Turquie waaw waaw Istanbul waaw taxawu nañu ba taxaw yu rafet di jambar di jàmbar di ci wo seigne bi mi ngi ciy woo euh, jëwriñ mbak yu fay di jëwriñu xalif euh, général des Mourides bu Masaalikul dinaan moom sax su ma juumul am na lu mu jot a def mm-hmm. waaw tàmbali na dara am na lu mu tàmbali mm-hmm. waaw sëñ bi mu ngi ko ci woo di ci woo waa diwaan gi yépp nag mm-hmm. waaw di ci woo mbooleem kuréel yi nekk ndakaaru loolu moom sama woote woote sëriñ bi la waaye sama woote bopp la bokk na ci woote gi dafa lam daara joo xam dafa ko tudd muy gébb faal suñu bokk waaw jëwriñ ji di sëñ Abdoulahi Mbaye nga xam ne fu fu waaw bu ñu ko defee mm-hmm. fo ginnaaw ginnaaw yàlla ak Cheikh Ibra ñoom la waaw di leen siyaare bu baax a baax gaayee ma ko wax tunkatu yàlla yi nga xamante ne bii kër Cheikh Ibra moom kenn mënu leen ci ay jàmbaar lañ ci bay ji ba tey ñoo mën a waa gébu dañoo mug dégg waaw dëgg la ñoom gan ñi ngi ñoom Cheikh waaw Cheikh Fall Cheikh Aba gaay ñoom Aba gaay ñoo mën a waa waa gébu dañoo mug dégg dañoo dégg ñooñu mag ñoo ma tàmbalee ah walaay di ci woo waa waa équipe bu jës bu murit ñoom sëñ Ndongo Fall ah, ñoom Mbayloo ah, ñoom Mour Ndiaye Faye gaa yëpp seen bis la ah, di woo waa daara waa waa waa ngontu ngontu Pikine bi ñoom Cheikh Ñang sama gaa yi Fallou Sall ñoom Cheikh Ñang ak euh, Ahmadou Ndiaye di woo waa kuréelu café gi tamit sëñ baa ngi ci woo ñëpp waa daara Maam Seydou Ndiaye soxna Fat de jiite ko ñu ngi leen ci siyaare tamit ñu leen ciy woo sëñ baa ngi woo ñëpp woote gi daal bawul fenn. bawul kenn. Mm-hmm. bawul ñenn. sëñ bi nee na ngeen ñëw. Mm-hmm. ñu sant Serigne Touba sant maam Cheikh Ibra. waaye rendre hommage. Mm-hmm. wane liggéey Serigne Moudou Ablaye Fall Ndar rendre hommage sëñ Cheikh Jëmb Fall. ñoo ngi tuub bu baax a baax di wàcce kàddu yi maanaam kuréel gii nga mujjee wax. mu am solo lool. waaw kuréel jëf si kër sëñ Moudou Ablaye Fall Ndar. maanaam ku si bëgg am ay tegtal wala bëgg see am lu leer. ndax am na numéro yu mu mën a waaw xanaa. sunu numéro daal. Hmm. waaw mun naa joxe numéro yi. 77. 323. 15 63. loolu leer na waaw suñu numéro ndax ndigal la goo xam ne. Hmm. suñu Cheikh Bintu moo ko jox. dëgg la moo nu ko jox. Hmm. ngir ñu yaatal ko kenn moom ko suñu mu dab ko moom waaye comme li ma wax nii moom yaatal na ko sax ne liggéey saa maam Cheikh Ibrahima. waaw moom daal ñoo ngi sant ñëpp. yéen sëriñ bi mi ngi leen di beralal. kon ñun si lañ bokk ñu leen di gis waaw yéen moom yéen moom li may wax rek moom alalam lañ gis nga euh, signalin kàddu yi moom moom lay tëjee hmm. Cheikh Ibra du morom hmm. ñaar nag moo am ceeb murit keroog rek maa ngi koy wax ci ngénte hmm. ñu gis la wekk yoon bi mbaa ñu gis la yeb yoon dëgg la ku ne am na sa responsabilité nag ñu gis la wekk yoon bi mbaa ñu gis la yeb yoon waaw ah. fi ñu toll nii sëñ bi <laughs> kenn mënu ko defal dara ndax lu fi mat a def sëñ Tuubaa def na ko mm-hmm. lu fi mat a lu fi mat a wax sëñ Tuubaa wax na ko lu fi mat a jëf Cheikh Ibra Fall jëf na ko mm-hmm. xam nan la ñuy sagalee sëriñ bi mooy fexe ba ñi xamul sëriñ bi ñu góorgóorlu ba fexe ñoom ñu bokk ci liggéeyal sëriñ bi mm-hmm. magul laminaas bu ren bi bu déwénee ñu góorgóorlu ba ñii bi yàlla dogal na histoire dina dina dina bind na ñëwoon nañ bis ñi tey talaata fii. ñëw di waxtaanee Cheikh Ibra Fall ak Màggalu Laminas. maa la wax léegi incha allah ñu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax a baax a baax. te ci bis ba. Mm-hmm. dama koy dellu di ko waxaat suñ Modou Ablaye. mi ngi nii. yow mii histoire dina la waxtaanee. waaw mi ngi nii sëñ Modou Ablaye mii. xamul ku bon. Mm-hmm. xamul ku bon. Mm-hmm. xamul kuy propagande hmm. xamul kuy kumu defar nga fi ngay genn ci kërëm di dem fenen hmm. ngir alalu aduna hmm. ñun lim dik, wal wala lim ñu defal day ñu sekk sekk te xam nañu li li seigne Modou musta mbacke waxon lima seigne Touba wax dik te gisaguma la gëna gëm lim ma defal ah. ñun mom lañu gëna gëm mas na maa wax na mas na maa wax na ah. ma waaw leen góor jàmbaar ngeen de acca ah, dox leen dem rek man de rafa laa leen boole lu war ci ko neex na tàgg tubaarkalla alhamdulilah sëñ Mamour foofu la ñuy daanelee doon waaj waaj waaj waaj bis ba ndax eh, sëñ Magaye mi moo ñuy tëjal jotaay bi mm-hmm. sëñ Mamour di sant ak ziar bu baax nag mboole mbokk yi doon bàyyi xel jotaay bi mm-hmm. sëriñ Abdul Xaadir Seck moom sëriñ Maam Mox Mbàkke moom sëñ Mourtala sëriñ Abdul Xaadir Seck Baye Fall la ñuy wax ah, moom ku bëgg Cheikh Ibrahima Fall mu ngi yóbbante ay nuyoo ki ziar bu baax a baax sëñ Lamine Aajit moom sëriñ Abdou Latif Dieng ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom sëñ Lamine Aajit moom it moom moom moom Baye Fall la <laughs> di ko ziar di ziar mbokk yi nga xamante ni ñu ngi doon bàyyi xel mm. tudd nañ fi sànq sëñ Fallou Diop mm. di jëwriñu di jëwriñu Touba ñu ngi koy ziar bu baax a baax sëñ mm. Dame Sène moom jàmbaar la dëgg yàlla ñu ngi koy ziar soxna Njaxat Fall doon na doon na bëgg a dugg waaw mu ngoog mu ngoog sëñ Cheikh Fall Mbor di mu ngi tuub euh, bu baax sëñ Maa Ibnu Samb Serigne Cheikh Fall Mbawar yàlla na ko suñu borom doon lay yàggal moo ànd ak bi maanaam bëggoon na tabbi sax si jotaay bi nu ngi koy tuub te di ko jéggalu bu wër a wër a wër a wër Fall yaaram mm. euh, ndax euh, waaw ndax ay xeeti jafe-jafe liñ beeg yooyu rek waaye daal ñu ngi jéggalu bu baax a baax Fall yaaram xam naa ni moom moom mm-hmm. euh, ñaanaat ci moom mm-hmm. murid yi nam nan ko mm-hmm. eh, saa su ne ngir nag dem ba dëkk bu sell ba di Touba am ak moom jotaay boo xëy na daal yàlla na ko fi yàlla yàggal suñu borom ko fi mm-hmm. yàggal di ziar a bàyyi murid Jóob ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom sëñ Cheikh Fall boobu waaye sëñ Aliou Badara xam naa du ñàkk nag talaata yi ci kanam borom gaawaan ak Cheikh Ibrahima Fall mënut a ñàkk incha allah. ndax ndax ndax màggal gi ni ki le le le 19 juin. waaw incha allah bu soobee yàlla. waaw mm. euh, sëñ Saliou Mbacke Darou Salaam moom Cheikh Ibrahima Ndar. Mm-hmm. maa ngi koy ziar bu baax a baax tey rek wax nañ téléphone waaye ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. Cheikh Babacar Mbacke mu ko bu baax a baax. bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. maam li ci gën a yéem rek moo wax la. dafa am ay murit ndeysaan yu ma woo tey depuis démb. ma ne ko sëñ bi dafa waxoon ne jotaay yi am ci yi ñuy def ñoom ci wàccaayu màggalu Daaru Salaam biñ ci jagleel Cheikh Ibra Fall ak borom gaawaan yow lañ ci xalaat eh. te boo xoolee murit yooyu sax boo leen xoolee man ba ma leen xamee ba tey damaa def woon ne suñu kër la ñuy wuyoo ah, ndekete sëñ Saliou ndekete waaye ba ma leen ñoom nag eh. laa xam ne ndekete la ma doon wax naan kër Cheikh Anta kër Cheikh Ibra génn kër la tey dama ko gis ci seen i jëm noo ngi siyaar bu baax a baax mm-hmm. Cheikh Ibrahima Tall moom tam bokk ci murit yi Cheikh Babacar maanaam tey dañ ma yóbbu ci xaal daal waaw ndax man xama san waa ji boo yoroo aw melom rek da am foo muy yóbbu boo gisee maam Cheikh mën a taarif dana ko dana ko waxtaane sëñ Mourad laay ñëw këram loolu des koy waxtaane ji taarif dana ko nekk bi taarif dana ko nekk bi waaw mu ngi koy ziar bu baax di a baax xam naa ne Saliou Diakhaté day sama mag ñu bokk benn baay adduna mm. yëpp xam ni mm. ñu bëri foog ne maag moom ñoo bokk lépp ñoo bokk sax ay xarit la maa ngi koy nuyu di ko moom soxnaam soxna Xadi di nuyu sama soxna <laughs> soxna Faama <laughs> waaw ak njaboot gi yëpp soxna Mbayang Konte ak Seyna Bouk ñëpp Lamp Fall sama tout tànk sëñ moo doog ñoom ñëpp rek maa ngi nuyu ñëpp ah maa ngi waajal de waaw ah. ngeen ñaanal ma rek kon foofu la ko waaw ñaanal leen ma rek maa ngi suñu am suñu ma damaa nekk ci plateau damaa nekk ci plateau de seen dem waa Pape Demba Faye. Pape Demba dem Demba Seck sa xarit. Pape Demba Seck ci Amérique sunu sunu xarit siyaare bu baax di siyaare. sunu lépp wax dëgg yàlla di siyaare sama mag. Hmm. soxna Ami Jaxate nekk fa ak njabootam. Bintu Thiam ak Maam Jaara di siyaare borom këram Serigne Mor Thiam Pape Demba moom. ah mu ngoog sa waayu bopp la ak mu barak sunu waayu bopp la sëñ mu barak Thiam di ko ziar bu baax a baax ak mboolem mbokk yi nekk Amérique yëpp di leen sant bu baax a baax wax dëgg yàlla jotaay bi am na solo waaye nag nañu bàyyi xel samedi le 11 ca Masalikul Jinaan le 11 juin bi di samedi bi ñu dëgmal incha allahu rabbi Serigne Cheikh Bintou Fall woo na képp kuy wax ashhadu la laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni foofee ndax nit ñëpp la am lanteel ko am kóllëre ndax ni ñuy wax dégg nga mu ngi rendre hommage bis boobu Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla borom do li dolli mom waye di si baye xel Serigne fallilu kan ambassadeur yalla na borom yokki leram bu baakha baakha baax di len sante mbok yi ñu doon jappalé si émission bi yépp xamné bu ñuy yëkkatee jotaay bi len dëkk ak yeen nak kon ci annonce bobé nga xamanteni moy mooy annoncé émission e, moy annoncé bis bobé mhm. di e, bisub Lambinaas mhm. samedi bi ñu dëgmal inshallah ya jëfël serigne magay serigne majëng si e, ki it nga xamné moy mooy Yankuba Daabo si wàllu caméra yi waye serigne Abdou Sow si walu son bi réalisation euh, Serigne Dame Thioum di ko jaajëfal bu baax a baax xam naa yaa ñu tëjal jotaay bi ñu ñaan waaw <laughs> laa <laughs> ilaha illa la baal laa ilaha illa